mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ànd ak yéen yëri li mboole yéen a kaay xëy fësal dañ koy door ak journal bi di 24 heures yéen i kaay journal bi indi nataalu Ismaïla Madior Fall maître Sidiki Kaba ba ci Mamadou Badio Camara mi nga xam ni moo jiitee conseil constitutionnel journal bi nag daal di xam le ni jamono yi ñëpp nag jël nañu seenu gët daal koy teg ci kuréel gi nga xam ni mooy conseil constitutionnel moom mi nga xam ni moo fas yéene yi yàbbi ci li nga xamante ni moom la ñëpp di xaar ci ban bis la ñu fas yéene amal élection tabub njiitu réew ci atum 2024 mu mel ne loolu ñi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi bokk na ci ñi jiite mbootaay xeet yi ba ci union européenne ñoom ñëpp nag jamono yi eh, teg nañu seen gët la ñu bëgg rek mooy ñu jàpp bis bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene amal élection yi journal bi nag daal di indi kàddu maître Sidiki Kaba Ismaïla Madior Fall ñoom nag seenu càkkuteef mooy li nga xamante ni nag moo am ci article 36 bi alinéa 2 bi ñu koo def mu mel ni rek seen càkkuteef boobu journal bi di yoor yoor indi na nataalu président de la république des ci li nga xamante ni moom la ñëpp di xaar ana ban bis la ñu nataalu président de la république daal di xam le ni rek moom mi lee fasenewul sàmmonteg ak article bi nga xamante ni moo nekk ci constitution bi beneen journal wax ci li nga xamante moom la ñëpp di xaar di tribune yéen kaay des ci amnistie bi nga xamante ni jamono yi moom la ñëpp di ŋawti ŋawtee ci réew réew mi journal bi nag dëxëñ ci xëtam bu njëkk daal di xam le ni lii nag ab xontu dëgg la nag bu am ci démocratie réew mi ndax li nga xamante ni moo fi jot am ci atum 2021 ak jonni yàlla tey jii lépp la ñu bëgg a effacer maanaam dara du mujjee xaw li nga xamante ni ñàkk nañu seen bakkan ñi nga xamante ni am nañ ci ay yàqu-yàqu dem sax ba ñi nga xamante ni jëlee nañ ci ay gaañu gaañu journal bi nag daanaka loolu yëpp nag day mujjee naax saay loolu la journal bi di tribune yéen a kaay daal di xamle lii quotidien journalu origine SA bi nag des ci loi d'amnistie bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene amal ci biir réew mi journal bi nag daal di xamle ni càkkuteefu président de la république jamono yi nag ñu bari dañ ko du mooyu bi yokk ci rek ni amnistie bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene amal ca pencum ndaw réew mi ci atum 2021 vingt 2024 lii nag coow nag daat na ci judd lu ci mënti xew ni ki tey jii ci talaata ji la commission bi fas yéene yi yàbbi ci boobu la projet de loi Thierno Alassane Sall bokk ci yenn député yi nga xamante ni jamono yi ñu ngi ca pencum ndaw réew mi moom nag nee na xel xalaatul benn yoon ñuy bàyyi si bii muy jàll lépp lu mu bëgg jamono yi nag mooy dëgg nag mujj ci li nga xamante ni moo am ci biir réew mi la soleil yéene kaay daal di xamle ni moom président de la république ñi nga xam ni ñoo yoroon mbir mi daal nañ koy jébbal rapport bi nga xam ni daanaka moom mi le moom la fas yéene jébbal conseil constitutionnel ginnaaw ba nga xam ni dialogue ba ñu doon amal daat nañuy càkku ñaari fan ci weeru juin bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal ngir amal élection tabub njiitu réew ci biir Sénégal antenne quotidien dëggal kàddu yi nga xam ni moom la soleil yéenekaay daal di fësal ci xëtam bu njëkk journal bi daal di xam ne ni jamono yi li nga xam ni moo génne woon ca dialogue ba ni ki démb la ñu ko jébbal njiitu réew mi journal bi nag daal di ci yokk rek ni jamono yi ñëpp nag ibbi nañu seen i gët tey déglu conseil constitutionnel moom mi nga xam ni moo fas yéene yëy yàbbi ci dogal bi nga xam ni moom la ñu fas yéene ba nga xam ni ay càkkuteef jugee gi ak ñi nga xamante ni ñoo demoon ci dialogue bi ñoom nag ñu daal di xamle ni ñaari fan la ñu bëgg ñu amal élection yi nga xam ni moom la ñu dëkkmal ñaari fan ci weeru juin bis boobu nag ñi nga xam ni ñoo nekk ci kujje gi bëgguñu koo dégg benn yoon ndax l'info yi ne indi na loo xamante ni mën na am jamono bu ne laataa ñu àgg ci ñaari fan ci weerum juin ndax bu deful nank nag ay xew-xew diine yu bari nag dina am laataa ñu àgg nag ci ñaari fan ci weerum juin bi nga xam ni ñoom la ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci dialogue bi am càkkutéef ngir ñu amal élection yi nga xam ni moom la ñu dëkkmal lu ci mënti xew ñi nga xam ni ñoo féete ci ku jegi ñoom nag nee nañu laata ñaari fan ci weeru avril bi ñu dëkkmal njiitu réew mi war na jàpp ab bis boo xamante ni dañoo fas yéene amal élection yi Sud Quotidien moom des ci loi d'amnistie bi nga xam ni moom la ñu fas yéene amal ca pencum ndaw réew mi ginnaaw ba commission bi fas yéene yëy yàbbi ci li nga xamante ni moom la ñu leen jébbal daanaka ni ki ëllëg nag daañu ci yëy daañu xam fan la wànneen di mujj ak i gëtëm waaye lu ci mënti xew ginnaaw bu loi képp ko xam ne dañoo jàpp ni da ngaa laale ci événement yi nga xam ne amoon na ci atum 2021 ak jon yàlla tey jii dañu la may ngelaw lu feex lii nag le journal bi daal di dëxëñ ci xëtam bu njëkk indi nataalu ki nga xam ni mooy Amadou Mame Diop l'évidence yéene kaay daal di des ci projet de loi bi nga xam ni moom la ñuy ruumandaat fas yéene ko voté ca pencum ndaw réew mi journal bi daal indi nataalu président de la république xam le ni jamono yi ñu féetee ci kujje politique bi ak ñi nekk ci société civile ñoom nag daat nañu dumoyu càkkutee mi moom mi nga xam ne nag jamono yi daanaka noppi na ba dëkkër ak ñi nga xam ne ñoom la àndal di ay député am euh, fas yéene voté loi bi nga xam ne moom la ñu fas amal ci pencum ndaw réew di assemblée nationale Vox Populi moom la dëggal ci xëtam bu njëkk ni ah ñoom ñi nga xam ni ñoo féete ci ku jégi lu ñu manti bañ njiitu réew mi nag moom daal di nay takku ay bagaasam rawatina ñi nga xam ne ñoom la àndal ñu daal di joxante rendez-vous fa nga xam ni mooy ci assemblée nationale mu mel ne rek càkkutéefam mooy ñi nga xamante ni def nañu ay jëfi ñaawteef ci ci li nga xamante ni moo am le Quotidien xam le ni jamono yi président de la république nag moom daat nay fësal càkku téefam ci projet bi nga xamante ni moom la ñu yóbbu ca péncum ndaw réew mi ndax journal bi daat nay xam le ni lépp lu xewoon ci atum 2021 ak daañu ko effacé ba mu jeex ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko moom nag dinañ ko mën a li nga xamante ni mooy éligibilité mu mel rek daanaka ay mbir mbiraan yu bari yoo xamante xew ci loi d'amnistie bi nga xam ni moom la ñuy fas yéene a kaay le ni publique jamono yi dafa noppi ngir satal Ousmane Sonko ba mu set wecci waaye nag mu mel ni càkkuteef boobu l'observateur nag daat na ciy def ab gëstu bu yaatu ci li nga xam ni moo jëm ci projet de loi bi ñu fas yéene amal ci pencum ndaw réew mi journal bi nag daal di xamle ni nañu def nànk ci mbir mi ndax nag daanaka musiba lu ne mën na cee am ginnaaw ba nga xamante ni ñenn ñi ngi sàkku ñu daal di voté bi la loi waaye nag journal bi gëstu bu yaatu bi nga xamante ni dal na koy def dëxëñ ko ci xatam bu njëkk muy ay nit yu bari yoo xamante ni jamono yi daat nañuy dëddu làq nañu ginnaaw ba nga xamante ni seenu bakkan des na ci manifestation yi nga xamante ni amoon na ci atum 2021 ak jonni yàlla tey jii waaye leneen loo xamante ni journal bi di l'observateur daat na koy dëxëñ ci xatam bu njëkk mu mel ni rek daanaka cour pénal international dina am yoon ci mbir yi nga xamante ni daanaka xew na ci réew mi ndax am na ñu bari ñoo xamante xamante ni jamono yi nekk seenu càkkutéef mooy mbir mi àggee ci CPI waaye nag lu ci mënti xew li xewoon ci ak jënn yàlla tey jii ñu bari ci wi yàqule nañ ci bokk na ci ay oto yu ñu taaloon ay bakkan yu ci rot ay station yoo xamante ni kenn waxaalewu ko loolu yépp fas yéene naax saay ci biir réew mi doy na waar bu ko defee xawaa nga tëj ba beneen yoon jàngi jëf di ko jaajëfal lu